élection yi ni ñëw jigéen ñi nekk Parcelles Assainies dañoo takk bokk ndey ak baay ñun ñuy suñu biir pour jàppale président Macky Sall parce que dañ ko bëgg di ko jàppale xam nan la ñuy def ba mu gagné élection 2019 te ba élection yi jeexee ba tey ñun dañoo continuer noppale ko ñu benn yoon mais dañoo am na xaru xool suñu biir am nañ lu ñu métti ñun jigéen ñi fii niveau Parcelles Assainies ndax soo nekkee responsable nekk ci base bi nekk ak say nawle ñuy yëkkatindoo di dóorandoo ba ñu ànd ak président Macky Sall du tey te bëgg ko defe naa moo tax ñu gëm ko ànd ak moom di ko liggéey teggi ñu suñu tànk benn yoon mais ñu nekk fekk sunuy nawle parcelle fii benn jigéen jiitewuñu ñu nekk fi ñun ñëpp nekk ay responsable ku mel ni Mbathia Niakhasso bu ñu ko falee un conseil mu war a jàppale président Macky Sall dafa war a tëddee ñaaxaanaay ànd ak jigéen ñi ñu bokk nday bokk baay parce que jiitewuñu dañoo ànd yàlla may ko ndombal tànk mu doon liggéey président Macky Sall nekk ci parti bi mais luñ ko jox mu jógee ci kaw base bi gisuñu ci seen bopp ñuy naqaru naqar boobu ñun jigéen ñëpp paas ak aseni fa metti nga bokk ci parti euh, di ci liggéey ca départ ba ba léegi waaye ci li ñu seetlu dafa am benn équipe boo xam ne bi dafa mel ni ñoom ñoo yor parcelle ñoom ñoom moom parcelle équipe boobu yàgg na fi ndax euh, bi parti bi di doog a taxaw ba fii ñu toll nii benn équipe mooy parcelle Parcelles Assainies muy équipe bu euh, mbay Ndiaye équipe boobu nag ñun amuñu benn xarma yàlla ak ñoom mais dama yaakaar ne liggéey lu benn nit di def ñaar ko ko dàq te gis nañu seen liggéey seen organisation seen i dem ak seen i dikk lenn dong la ñuy def ba boole ñu ci mooy kaa ñu mobiliser mais bu mobilisation jàllee leneen lu ñuy mënti yëkkate ñun du ñu dégg du ñu gis dañuy toog rek di dégg affaire yi la télé ou bien ñu di ko gis ci rajo bi bu dara desul nag lu dul euh, mobilisation ñu ne ñu jigéen ñu jóg leen loolu daal lañ bëgg mu dakk tey